ok waaw c'est suñu journée la nga xamante ne dañ ciy sargal ñun suñu bopp sage-femme nga xamante ren journée sage-femme le 5 la le 5 mai mais xam nga ak période Covid bi mënuñu woon def benn activité instant bi dañoo def 48 heures des sages-femmes de Rufisque nga xamante ne ñaari bis la le 7 tey euh, Youssou Margan la le 10 dañ koy defee Sangalkam si la ñuy yeexalee suñu activité yi léegi si la 7 tey jii dañoo am consultation gratuite malade bu ñëw jigéen bu ñëw lan lay sét xol li mengo ci yow comme soxla ñu fajal la ka en même temps defaa la dépistage cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ak don de sang bi nga xamante ne ñu ngi jëm ci namet bi té soxla ko motax tax ñu suñu journée la bok suñu activité journée bi la bok euh, ñaari téméru jigen lañu ñu ciblé lañu lañu lañu yaakar la dañ ko mëna am parce que suñu journée bi du tay rek. ñaari téeméeri jigéen ñooñu bu ñu ñëwul tey itam bu amee ñu manqué ñu ngi leen jox rendez-vous Sangalkam samedi la 10 incha allah. regard société bi mooy que d'habitude ñun Sénégal dañuy xaxal sage yi fu ñu toll mais ñun si li ñuy jublu ñun en tant que sage wan gox gi ak gox goxaani surtout jigéen ñi ne ñun dañoo nekk fii pour ñoom ñun ak ñoom benn lanu ndax ñun ay jigéen lañu dañoo njaboot yor suñuy doom donc ñoom dañoo war a def bu ñu ñëwee fii ñu war fi mën a am tawféex am fi confiance ak ñun parce que ñun ñom lañ fi nekkal. li fi dajalé moy que dafa am liñ nane journée mondiale bisub sage-femme sage-femme ñom moom bisub mondiale légui nak dañ ci profité ñom sage-femme yi association départementale bi ñoo organiser seen journée hmm, ñëw organiser collecte de sang ñom sage-femme ñoko organiser association départementale des sages-femmes ñoo organiser collecte de sang bi. ñu ñu sét Nous moon nag ñu né dañu bëggoon defaree jour may population yi consultation médicale gratuite.

que dina am banque de sang loolu euh, ki dem naa centre national transfusion sanguine waxtan na ci professeur Saliou Diop keroog bi may waxtaan bi may yóbbu lettre bi sage femme bi demande pour organiser collecte bi sax waxtan nak mom ci loolu loolu c'est presque euh, jàpp nañ site bi yëpp d'ici fin d'année rek dina sotti donc Tëngéej bu amé banque de sang dina tax bax nit ñi soxla sang bi yoy mu gëna a gaaw parce que fi mu ne nii bu ko soxla fi dañuy dem di ko wuti ba Dakar mais avec l'idée en fin d'année, dina tax affaire yi avancé autorité ministre ministre de la santé moko a non, moko non ci instruction président Macky Sall aussi